bi mu njëkkee claqué porte bi bi mu njëkkee claqué porte ba ses ministres ak même direction yi dem seen yoon amul benn lettre de courtoisie bu ñu bind Macky Sall. je parle pas de la ma ñëw rek. Ah. ma ñëw rek mais am na fi dama la bëgg a wax ne loolu am na fi aujourd'hui li tax Idrissa Seck delluwaat ak Macky kenn xamu ko moi j'ai été toujours contre Idrissa Seck di dellu si waat ak Macky Sall pourquoi. parce que Macky Sall moom ci boppam moo gën a tax ñu mere Idrissa Seck ñu. ah mais c'est vrai Macky Sall le nom de Idi le faisait trembler soo waxoon Idi ci ci ci kanamam wala lu Idi def ak yooyu mais mais tu risques beaucoup de choses. daf ko mere woon. mais waxuma mere mais na ma yàlla baal daf ko bañoon kenn buggul woon wax turu Idrissa Seck. Ah moo tax man mënu woon ànd ci sa Seck dellu si waat parce que moom moo taxoon ñu mere man li ma Idrissa Seck def lu ma may lu ma mun a defal lu ma joteeg Idrissa Seck mais ñun ñëpp dañu bàyyi woon Idrissa Seck daawuñu woon daawuñu ko woon daawuñu ko woon xool daawuñu ko woon déglu ci débat su génnoon sax dañuy changer changer kii bi loolu yëpp Macky Sall la ci dugal ñu jékki jël benn jour ah Idrissa Seck mi ak Macky Sall ma ne ah ñu ne ma waaw. ñu jox ko conseil économique et social comme saa nii la demee maa njëkk a génn ci benn bokk yaakaar ne bokk ma ci révisité suma kii bi maa njëkk a génn ne ñëw Idrissa Seck dellu si waatu Idrissa Seck bokk ma ci et le président n'explique rien xanaa soo amee ses collaborateurs ku mel ni Idi yow nga tax ba ñun ñëpp ñu bañ ko duñ ko xool lépp lu mu def safuñu mais sooy dem bay négocier waat muy dellu si waat ñun ñu ko gis ci ay journaux ñëwal sa collaborateur nga wër am na structure yoo xam ne may na ko mu mun a taxaw ak sénégalais yi ak ñun ñi nga xam ne ñooy collaborateur am seen mi ngi fi secrétariat exécutif national discuter wu fa ne ñëw idi dafa jékki-jékki rek convoqué bi après bi idi ñëwee et puis toog na ay mois yi mois yi mois soog a ñun ñu xam ko idi ñoo na idi ñëw na comme ça loolu loolu lu sérieux la est-ce que loolu c'est professionnel ci koo xam ne da ngay collaborer ak moom surtout politiquement. am na yu bëri yoo xam ne. bokk nga donc ci ñi nga xam ne parce que am na allié président yu bëri ak ay ñoñam sax ils lui en ont voulu mu. man maay premier mu mu jël mu mu dellu si waat man maa doon premier bi bu bañoon parce que xam nga nit doo bañ tey bëgg ëllëg. mu dellu si waat Idrissa Seck et puis pour Idrissa Seck il se sépare même de de ses de ses de ses am na ñu naan sax. nguuru Macky Sall la 2020 boobu la la la la la tànge il a fragilisé non, commencé daanu nel il a fragilisé pour les beaux de Idrissa Seck. et Seck repart. est-ce que nous nous savions que Idrissa Seck du fi yàgg man xamoon naa ne Idrissa Seck du yàgg ak Macky Sall. foo ko parce que bëggante wuñu c'est ça la réalité. ah là c'est des frères ah. bëggante wuñu. ils de. mais c'est du cinéma. bëggante wuñu. moi j'ai eu des frissons en la lettre. je te dis font de la comédie aux Sénégalais. moo tax ñu war leen fi jëlee. loolu moo tax ñu fay jëlee Macky Sall. comédie rek la ñuy def. comédie ba ci économie sax soo duggee ci comédie la ñuy def. l'économie du Sénégal. les dettes du Sénégal les gens qui disent que ñoom ñaar dañuy baara yógo lañ baara yógo lañ nekk yow loolu nga gëm. xoolal je vais te dire une chose. Hmm. Idrissa Seck ak Macky dootuñu daje. xaw ma ah. xamuñu xamuñu déjà xam nga la courtoisie l'élégance le respect de ses collaborateurs ku demoon ba nga ne xalaat sax ne dinaa jëli Idrissa Seck. nga toog au moins tu un secrétariat exécutif national nga toog ak ñoom expliquer leen lii ak lii moo tax ma bugg a jëli Idrissa Seck balaa muy ñëw ñu wax la ci suñu xalaat mais respecté woo sa secrétariat exécutif national directoire APR xaw ma ban année la ko sàll Sall gëjë tegaat sur le sur sur sur le plateau wax ak ñoom déjà ce directoire là ñii maara de taali faatu nañu ñii bàyyi nañu ñii dem nañu dootul sax directoire amatu fa nga am ay collaborateurs yu demee noonu ou bien nga ñëw ci Benno Bokk Yaakaar c'est c'est à un autre niveau la majorité présidentielle nga waxtaan ak ñoom balaa indi ni ñëw nga ne ah am naa intention que indi Idrissa Seck ñu ñëw ku ci nekk wax la sa xalaat mais jékki-jékki ne tël Idrissa Seck ñëw na. bombardé ko conseil économique et social mais loolu mooy indi frustration. alors que yéen les compagnons de de de. non man bëggu ma woon position Macky Sall woo na ma këram ci kanamu jabaram télévision laa nekk mi ngi nii te yàlla laay waxal ci kanamu soxnaam ne ma Arouna lan nga bëgg ma leen di reetaan loolu am na donc man bëggu musuma bëggu position. mais pourquoi musu position maa ngi sant yàlla